asalaamaaleykum mbokk yi ñu ngi leen di nuy di kontaan bu baax dajawaat ak yéen fii ci seen flash andilaat leen ah, seen émission bi di ëttu tooxi doona comme niñ leen koy waxee saa su nekk rek numéro yaa ngi noonu émission bi yéen ko moom yéen la képp koo xam ne am na loo xam ne yaa ngi koy dund te muy tooxi doona wala nga gis nit di ko dund mën nga woote ci numéro yi nga waxtaan ci ak ñun incha allah dinañ ko jàllale nu mu gën a rafetee ut ci solution képp koo xam ne yaa ngi koy seetaan di ko dégg saa su nekk émission bi dafay am solution dangay gis koo xam ne dafay toll fa mu toll seetaan ko bàyyi ko xel bu baax jàngataat ko daal di woote téléphone xamal la ne bu dee ku réer la mu wax ne affaire bi kat yaayam mi ngi fii wala doom ji mi ngi fii di ñu jàppale bu baax a baax a baax comme ni ko ñooñu defee saa su nekk rek yéen tam yéen ñu koy bàyyi xel di leen di jël numéro yi di ñu woo duñu ñu contacter waxtaan ak yéen ci lépp loo xam ne yéen a ngi koy dund mu doon tooxi doona tey nag euh, tooxi doona bi ñuy waxtaanee moo am benn xale bu jigéen xam naa sax dina tax xale yu jigéen yi bàyyiwaat xel bu baax a baax ci seen dundin ak euh, tey la bëggante bi ñuy def ndax kii di ans la am rek moo xale bu jigéen bi néew 16 ans la am xale bu góor bi nga xamante ni moom la seqal moo am di ans mu mel ni benn at rek la ko mage kon soriyante wuñu ñoom ñaar yaakaar naa ni xale bu góor boobu mënalul xale bu jigéen bi lu bari ndax magewu ko lu bari ba di ko mën a diriger comme ni mu waree muy génn ak xale bu góor bi ñooy xale yu ndaw mu am benn koor koor goo xam ne xale bi dafay faral di tàggoo entraînement bu ndogoo ba pare mu mel ni waajur yi war ngeen di bàyyi xel xale yi ci heure yi ñu leen di tàggu di génn moo xam naafila ji moo xam entraînement parce que xale bu jigéen kat yaakaar naa ne bu timis xasee passé surtout xale bu jigéen boo xam ne 16 ans rek la am bu timis xasse passé yaayam war na baye xel bu baax mu tok ci wetam lepp lu mu deful ba timis passé aajewul muy genn fi tagone da koy defé muy entraînement muy lu mu meuna doon ndax amna heure yeneen yu ñu meuna entraîner mo xam suba tel wala ay 17 h japp 18 h mais pa nga baye ba timis ki maase rek nga tàggoo sa yaay tam amu ben xel mu ñaaw daati lay baye mu dem di gisse ji ak xale bu góor bobu xale bu góor bi nak mom mi ngi dekk keur papay jitlem manam fi yaayam di sey ñoom ñi nga xam ne ñooy kilifa yi ca kaw lañu nekk xale yu góor yi seen néeg mu ngi nekk ci suuf léeg-léeg loolu day faral di am da ngay faral di am say njaboot yu góor bàyyi leen ci seen néeg léeg-léeg néeg bi day nekk ci suuf parent yi nekk ci kaw wala néeg bi moom ngay njëkk a jot soo ko jot néegu parent yi mu bari loolu loo xam ne dafay xew di teexu doona te waajur yi mën nañ koo bañ a gis wala ñu seetlu ko ngeen bàyyi ko xel yéen ñi nga xam ne da ngeen nekk ak seen njaboot gu góor ñuy ay xale yu ndaw tollu ci buntu àdduna moo xam dañuy jàng wala ñuy jàng métier ngeen di bàyyi xel bu baax dugg bi ak génn bi ndax waxuma la lu mel ni ay jigéen di leen fréquenté ba tuuxi doon di fa am sax mais yeneen seen moroom góor yoo xam ne ñaari yarin yi bokkuñu wala yàqu nañ fa ñu jóge dugg ci biir kër gi di seet sa njaboot di leen fréquenté bu yàggee wax ma sa xarit ma wax sa jikkoo kon ngeen bàyyi ko xel bu baax xale bu jigéen bi di ko fréquenté di ñëw durant weeru koor gi yëpp bis bu nekk bu tàggoo entraînement rek bu ñu ko bàyyee mu daal di dem fekk ki nga xam ni mooy xale bu góor bi xam naa ba yàlla def seytaane seen diggante mu daal di koy far tooñ bi mu ko tooñee waajur yi yëg ko papa jiitle xale bu góor bi ak yaayam yëg ko yaayu xale bu jigéen bi tamit yëg ko bi ñu ko yëgee ñoom waajur yi defuñu lu dul daal di raxasu ci ñaari xale yi ba set papa jiitle ji moom dafa wax ne xale bi nanguwul jàng ba pare di dox ci ay caaxaan kii daal ay affaire am moom xamatuma ci dara yaay ji tamit doxalee noonu mu yaay xale bu góor bi ci koo xam ne 17 ans la am yaakaar ne loolu jaaduwul ndax 17 ans majeuragul sax boo dee xool ndax 18 mooy mooy majeur xale bu jigéen bi 16 ans la am yaay ji itam def noonu ñu nekk ci ay jafe-jafe ñoom ñaar comme ñoom ñaar ñoo bëggante ba yàlla def loolu am seen diggante ak tamit euh, xaritu xale xale bu góor bi nga xam ne moo tooñ xale bu jigéen bi ñu nekk ci ay jafe-jafe ba xale bu jigéen bi xam nga rek xam naa stress bi ak wéetaay bi ak maandu bi yaay ji maandu ci moom mu commencé di am ay saignement di señe nekk di feebar ko nekk ci ay jafe-jafe ku ne xam na ni jigéenu wérul moom dafa laaj lii di toppatoo mais boo ko abandonné noonu mu war a dem xool yaramam jënd ay garab noppalu lekk ba suur yooyu yëpp boo ko amul mën na ko indil complication ci grossesse boobu ñu nekké noonu ak coono bek euh, feebar bi ñu daal di dem gis euh, kenn ci xarit xalé bu goor bi mom yaaji day yëngatu ci walu paj ñu daal dem ci moom waxtaan ak mom ngir mu jël xalé bu jigen bi en charge diko ko ci yoy nga xamanteni mom moom la jigéenu wëru di soxla tax amul doole bi mom xalé bu jigen ji ak waaji yépp biñu waxtaané itam maire bi nangu jël en charge di leen jappalé di leen jappalé ba xalé bu jigen bi mujj na am doom mais dañ ko césarienne bi muy am doom léegi nag am na doom ci jàmm ak salaam yàlla def doom ji dund na moom dund na ñu dem ba xale bi di xaw a dëgër si tuuti yaay ji ak pap euh, yaayu xale bu góor bi ak yaayu xale bu jigéen bi xam naa commencé nañu di retourné waat ci xale bu jigéen bi ak bu góor bi yépp ak seen set boobu xale bu ndaw boobu léegi xale bu góor bi nag ak xale bu jigéen bi ñu ngi commencé di fréquenté waat ku nekk ngi gisanteeg sa moroom te am naa yaakaar ni loolu moo amoon ba grossesse am ci kon bu ñu continuer noonu ñu di ko seetaan leneen mën na cee am ëmb mën na cee am xale bu jigéen bi dem ba ragal la ko daloon mu dalaat ko mën a dem di ko jéem a dindi mën na cee ñàkk bakkanam mën nañ cee ñàkk bakkanu xale bi léegi nag loolu ma foog ni parent yi dañoo war a jël seen doom xam ne ak lépp lu ko mën a dal rek doom ji sa doom la muy ci wàllu ku góor ki ak ku jigéen ki yépp ki nga xamante ne moo leen doon jàppale tamit di soxna soosu daanaka waajur la ci ñoom kilifa la ci ñoom moom tamit war na taxaw beneen taxawaay lu jàppale noonu jàppale leen noonu rek daal di maandu déedéet. dafa war a dem seeti ji yaayu xale bu jigéen bi ak bu góor bi xamal leen ne ñoom ñaar ba léegi ñu ngi gisante te la xewoon seen diggante mën naa xewaat déglu leen ba xam lan lañuy tontu bu fekkee jéemu ñoo jël benn responsabilité. am na ay imaam ak ay chef de quartier mu dem waxtaan ak moom ndax kat ay xale moom ay mag yaakaar naa ne ñoo leen di jàppale xamal leen fi ñuy teg seen tànk ba la leen daloon dootu leen dalaat mais bu fekkee dafa maandu rek bàyyi leen noonu maire bi itam di toppatoo sëtam di ko nemmeeku lijjantiwul xale bu góor bi ak bu jigéen bi bu ëllëgee loolu war naa amaat may wax euh, waajur yi nga xam ne ñu ngi nekk ak seen i njaboot ñu toll ci âge bi ma wax muy góor muy jigéen day leen saytu xale yi bu baax a baax bu loolu jàllee it erreur bu leen dalee nga xam ne lii erreur la léeg-léeg dafay dal doomu aadama ñëpp ñoo juum tam mag moo gis fii ci àddina xale la woon nekkul nag mag ñëpp ñoo juum mais njuumte moom day am saa su nekk saay bu amee nag ci sa doom yow mi waajur bi yaa ko war a jàppale yaa ko war a taxawu yaa ko war a dimbali tette ko ba loolu jàll bu fekkee ne da doon jàng nga jàppale ko mu eggale am njàngam bu dee dafa nekkoon ci njàngu métier itam nga jàppale ko mu eggale loolu mu doon def ngir bu ëllëgee mu mën laa yor yor boppam mbokk yi seen émission tooxi doonat lii la leen loon tey di ci laaj ci yéen mbokk yi internet yi seen xalaat numéro yaa ngi noonu ci suuf lépp loo xam ne yéen a ngi koy dund comme ni ma ko waxee woon mu di tooxi doona rek na ngeen jàll ci numéro yi ko ak ñun ñu waxtaane ko nu mu gën a rafetee incha allah jërë ngeen jëf